kenn naatablewul gox yi ni ñu sellee ak jëmm gu tedd gi fi tëdd ñu daal di sol yére yu weex di firndeel eh, jàmm ak cet yile ujjaaj daal di bàyyeekoo fu nekk. bi ma yegsee rek primo rek dama commencé ko dund quoi gis nga doo ma gisee sax xam ne émotion laay wax. macha allah maam Seydi amul moroom waaw affaire bi neex na. bàyyi nee na woon dina woo jinne yi. yàlla rek mi ko sàkk moo ko xam. ñëpp daal di déggoo ci benn baat daal di màggal ku tedd kii ndax lim leen jox almahdi. layla ila la maam bay lay naa jàllee moom ci boppam nag tarixa yëpp ñoo ko daal di nangul. di yàlla mais samay maam ay laayeen lañu samay mbokk aussi ay laayeen lañu looloo tax. ma fi ñëw daaw ma ñëw fi mu neex neex ma torop je suis mouride mais vraiment depuis huit maa ngi toog manu manu xaw ma lan laay def quoi mais sant yàlla daal fii daraa ngi fi. bokk na ci barab yi nga xamante ni nag mën nañ faa dëddu ñaan yàlla mu daal di koy nangu bokk na nag fi jëmm ji daal di tëdd. yàllaa ma tiim de Roowalaay Isaa mii bérébam bii giñ naa ko ci Seydina Limaam lu fi waaye ñaanta te dogu ko yàlla defal la ko. loolu moom leer na moom. fii yaakaar naa ne fu mu toll waxuma la waxuma xoblu bi de boo taxawoon ci biir sax loo mante ñaan mu nangu. yooyu la ñaan nag lu ci bari daal di soxal jàmm ak salaam daal di dellu ci Sénégal gannaaw ba ñu nemmee ko ay rëq-rëq soxal li ñu daal di dàq élection yi. ñu ngi ñaan daal nag moom si bisub ubbee Seydina Issa bii ñu ngi ñaan suñu réew mi yal na fi yàlla dolli jàmm. yàlla na fi yàlla sotti jàmm di seddu guyu jàmmalaay ci bëccëg ngoon gi ca Ngor ëllëg nag lañu ñu tëj mbir yi ca Yoof bu ñu jeexalee téeméer ak ñeent fukkeelu appel ak ñeent bi lenn rekk mooy daal di des daal di tàllal say yoxo ne amiin